benn fan ci weeru décembre di bis bi nga xamante ni moom la ñu jagleel jàngoro ji di Sida ci àdduna wërngal këpp ci atum 2020 bi fii nga xamante ni moom moo di commune bu Ross Béthio moom dugal na ci loxoom bu baax. foofee nag ca SEDAF bu Ross Béthio ca la ñu amal bis boobulee ki nga xamante ni moom moo di madame Oumou Diamanka sous-préfet bu Ndiaye feggoot ci nag ak médecin chef généraliste bi nga xamante ni moo nekkee ci centre santé secondaire bu Ross Béthio teewoon noonu foofu ngir dugal seen loxo bu baax ci liggéey boobulee ca waxtaan ya nag ñu jëmale ko ci journée de sensibilisation nag ci yokk nag li nga xamante ni moom moo di wàllu dépistage ki nga xamante ni moo di madame Dieye moom nag moo dalal Euh, le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants de lëkkaloo le conseil national de lutte contre le sida Qui plan sectoriel de lutte contre le sida le ministère nag madame Diop euh, dans le département de Dagana amal ay sensibilisation dépistage sur le sida Fils sur a déjà commencé dans ko tey Euh, muy lu am solo ñu woo ci waa dëkk bi yëpp góor jigéen mag ndaw dana ñu amal aussi beneen au niveau de Rosso Sénégal ndax choix bi li ko waral mooy dañ si waxtaan suñuy kilifa préfet ñu woon ñu ne monsieur le préfet de Dagana mu woon ñu ne euh, Ross Béthio ak Rosso dañu nekk milieu ya nga xamante ne c'est des zone de forte concentration euh, c'est des zones ya nga xamante ne migrants yi dañuy ñëw di dem di dikk ak saisonniers yi donc euh, euh, dem géeg dik bi dafa tartar lool té Rosso zone frontalière la donc fofu ci walu sida bi lune mën na fa xew fu ay nit ay góor ak jigéen yi di euh, jógee dans diverses raisons di tassé fofu lune mën na fi xew donc dinañu amal aussi ay causerie fi ci Ross Béthio nak dafa fekk né dama fi fekk liggéey bu am solo ngir wéyal liggéey bi mën ci am ndam ki nga xamanteni ni modi madame Guèye Madeleine Sène di xamle rek ni dafa fas yéene sukkandiku ci ñi nga xamanteni ñom ñoom tuddé ay club VGB mu japp rek ni sukkandiku da fay tax rek liggéey bi daal di gën yomb te it lepp lo xamanteni ni war na ko mëna ñongal jëmele ko ci ndaw ñi mu gën yomb bu baaxa baax. muy euh, ay euh, club VGB club VGB yoyu nak moy les clubs yi nga xamanteni c'est des clubs yu waxtaan ci violence basée sur le genre ma am chance de di waxtaan ak jigéen ñi bañ docteur Moko fi taxawal may dem di di redynamiser je pense que redynamiser ces clubs là ndax ministère bi les violences basées sur le sur le genre amal ay waxtaan yu am solo ak de des séances vraiment plaisant yu am importance ndax boo fekkee séance yooyu adultes yi dañuy ñëw góor ñi tooge nii jigéen ñi tooge nii xale yi jigéen ñi tooge nii day nekk conflit de génération ñuy waxtaan waxtaan yu am solo ñu jàpp ne club yooyu ku fa yóbboo ku fa yóbbu causerie yi di nga mën a atteindre say objectif te sa information dina mën a egg fa nga xamante ne foofu nga ko foofu nga ko bëgge te club yooyu ay relais yu docteur formé ñoo fa nekk ñoo xam ne seetlu naa ne lu xam li ñuy wax lañu

c'est l'occasion me remercier du fond du cœur le ministère de la femme bi nga de concert avec euh, euh, le comité national de lutte contre le sida ils ont choisi un thème bi nga thème c'est-à-dire s'ils appellent toute la population tout le pays à se mobiliser pour vraiment lutter contre la vulnérabilité des femmes je crois que lolo ce solo tolo torop rawatina euh, on nous invite à tout faire afin que qu'il y ait zéro cas c'est-à-dire chez les nouveau-nés et ça c'est possible parce que les stratégies sont là lu nous rek de continuer de sensibiliser population sensibiliser population afin que cette couche vulnérable nous ci pourquoi en quoi cette couche est vulnérable et je remercie encore une fois la directrice parce que les am solo mais au niveau du centre par exemple nous nous avons déjà d'autres stratégies on est obligé d'adopter ces stratégies et madame l'avait dit tout à l'heure la directrice l'avait dit tout à l'heure on a longtemps travaillé avec elle et on continuera à travailler avec elle dans ce sens par rapport à la sensibilisation. Mais nous, au cours de nos consultations, sensibilisation déjà interpersonnelle, non seulement on vous sensibilise par rapport à la maladie, mais on peut faire des indications en vous demandant d'aller faire le test. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'occasion. Mais au niveau du centre aussi, nous faisons des tests. Donc là, et on le fait secrètement, à l'insu de tout le monde. Hormis la communication interpersonnelle, nous avons l'habitude aussi d'organiser des causeries à l'intérieur des hameaux, à l'intérieur des quartiers, parce que nous avons des relais spécialement pour ça aussi. Donc je crois que les stratégies ne manquent pas, mais au cours des occasions pareilles, nous lançons un appel à la population aussi. Il faudrait que chacun se dise que ça, c'est mon propre problème personnel. góor aussi manqué wuñu parce que li ñu a def yëpp ci sensibilisation def nañu ko ñi nga xam les personnes ressources wax nañ leen ko góor mag ndaw frange boobu nag wax nga ko sànq dañu am solo ndax frange boobu dafa fekk ne yoo yaay boo jëlee euh, juróom benn jigéen yu am euh, jàngoro ji juróom yëpp ay xale yu jigéen lañ